jërëjëf sëñ bi ñu ñëw ci làmb mhm. ndax sport la boo xamante ni mhm. lépp daanaka mën naa ni sëriñ si ñoo koy def mhm. bari na ci mbër yoo xamante ne sax gannaaw entraînement bi sax sëriñ si lañ gën a wóolu que entraînement bi nga xamante ne ci lañu nekk mbër ci ban moment lañ koy samp ak ku ko bëgg a samp ci nan nga koy sampee. xam nga euh, ñaan am na mais ku ci entraîné wul. dem ci sëriñ mun la dama la ko assuré te fekk entrainement woo hmm. da ngay nax sa bopp. bari na ci mbër yu trompé xam nga lu leen di trompé sëriñ si ñoo leen di hmm. waaw. ñoo leen di trompé kii def naa ko nii boo ñëwee da ngay def ni ba kere ngay gis sofaan. Hmm. xam nga xanaa xamoo nit mën naa nekk mbër mu mag du tudd tur. li nit ñi jàpp ni moo nekk ca moom xam nga lu lu ci ëpp lu ko ko may. mooy entraînement ak fitam mais du jàpp lu nit ñi foog doole du fen entraînement du réer ci ki ko def xam nga nag nit neexu la jàpp ndax nit bala nga koo mën a jàpp am na benn calendrier booy teg lu xóotu xóot laa lay wax nii hmm. soo ko ubbee teg ko nit pour nga jàpp ko yaa ngi commencé ci loxo ndijoor bi jàpp ci xol bi jàpp tànk càmmañ bi lu ci nekk am na benn flèche bu mu lay defal ngay xam ni jàpp nga ko ba kere ngay jàpp jëm yëpp xanaa xamoo nit mën nga koo jàpp ba ci yàgg rek raw xaanam fiti dali fële waaye yow bu fekkee xamoo ko euh, comme dañ laa jox rek ay kayit ay kayfiyaat nga daal di jël jël tur bi sëf naa ko yi werd naa ko te fekk na li nga def danse bi ci nekk sax yow mi ko def xamoo ko xanaa xamoo sëriñ mooy ñii nekk ni ay ñaankat dan xanaa xamoo ñi ngi dund ci loo nga xamante ni risque la ndax ñaan boo koy def te maîtriser woo ko xanaa xamoo ni ñaan ñaankat yi la seytaane gën a soxla waaw nit ku seetul sax mën naa ñëw ci yow mais bu fekkente ni li ngay def xam nga ko am na loo nga xamante ni bala moo ñëw am na benn yëg-yëg bala suñ borom defal même nga sel rek am looy jëfandikoo am na loolu suñ borom di muccal ci yenn balaa yi nga xamante ni bala moo ëgsi ci yow ki ko xamul nag di doome rek maa ngi encaissé xaalis def ci sama compte bancaire oto bu rafet ma jënd kër ma jënd ah hmm, bàyyi jili dundub doomu aadama xeetu Seydina Muhammad ñoo gën a gàtt aw fan ci àdduna hmm. kon ginnaaw ñun diggante bi ñuy dund ak bi ñuy dee hmm. damaa jàpp ne am na ci yoo nga xamante nii jaru ko ndax nit bala nga faatu li nga war a jot kenn mënta wax ba doo ko jot ndax wërsëg risqu maa indallaahi wërsëgu jaam yàlla donte nag alquran moo ne maa faratna shay'an fil kitaab bépp e, lu wàcc kaw suuf yàlla wàcce na lu koy saafara te am na ci alquran kon noonu rek lañuy ñuy tënke lépp ci alquran. ñu ñëw ci samp bi mbër mu bëgg a samp waaw samp nag ñaare même du sax nit dañ ko koy defal xanaa xamoo nit mën na laa samp ba noppi ni la sept ans lay am moom mi la sampal sept ans yi di ko fekk samp bi continuer di am la cay laxasu moo bari ndox première taw bi njëkk laal suuf des na ca samp fi ne am na ñoo nga xamante ni fii seen ay samp jeex na wallahi wal quran am na ñoo nga xamante ni fi may waxee seen ay samp jeex na am na nga xamante ne ñi ngi xaar ndox laal suuf rek ñu dem defi ko. ñooñu ay mbër lañ seen samp jeex. am na ay mbër am na ñoo nga xamante ni duñ ay mbër am na ñoo nga xam dañuy liggéey mais yooyu man nag ci alxuraan laa koy tënk. Hmm. ndax man bu ma koy defit ci alxuraan laa koy def. Hmm. géej laa koy defee. lu may wax day lu leer. noo koy defee. déet loolu moom mbiri baatin la kenn du ko nëbbu <laughs> kenn du ko kenn du ko. kenn du ko leeral. Euh. waaw kenn du ko leeral. mais samp bi euh, actuellement ñan nga jàpp ne ci làmb seen samp dëgër na am na ñoo xamante ni tey ba mu doon limal seen samp moom jeex na tàkk. waa xam nga jullit nag day moytoo tooñ. Mhm. te nit koo nga xamante ni boo waxee àdduna dégg la dangay ngay moytoo wax loo nga xam ne day mhm. blessé nit. Mhm. du dëgg. am na ñoo nga xam ne defal nañ leen ko. dafa def mosuñu leen koo defal. Hmm. am na ñoo nga xam ne xam nañ ni seen bés jeex na. Hmm. waaye nag du tax ñu toog di ko wax ndax boo ko waxee day am lu muy nuru. wax ma ñi ñi nga xamante ne moom seen samp fi mu toll nii eh, assuré la. ah déet loolu moom kenn du ko wax. waa tool la parce que boo tuddee nit ci réseaux sociaux rek daanaka ni te alxur eh, safrula arab dafa wax ni laa daraara wala diraara hmm. bu lor kenn te bu la kenn lor. te boo waxee loo nga xamante ni arrangé wul nit mën nga koo lor te ñun ay jullit lañ yu doyee di yoo nga xamante ni bëgguñoo wax loo nga xamante ni day euh, lor nit. Hmm. fi mu toll nii daa mel ni li ci des bareetul bari na ay combat yoo xamante ne actuellement nii euh, daanaka li ci des bareetul mën nañ ne jub nañ sax ci càppaandaw gi lu mel ni Balla Gaye ak Bombardier xam naa ne la ca des bareetul hmm. combat yooyu wàccaay bi noo ko gisee làmb ji. nga làmb fi mu ne dafa naqaree commentaire. Mm-hmm. ndax mbër moo ci commentaire boo jëlee yow sa wàllu xam-xam teg ko. Mm-hmm. mën na koo gisee noo nga xamante ni da ngay day jàppale ni dangay jàppale nit te fekk na demeewul noonu. Mm-hmm. gis nga liberté wóor. mooy ku ci nekk am nga ay mbokk am nga encadrement soo jibee bis da ngay dem na ji. nga jàpp ni am na foo nga xam ne soo fa demee yàgg say mbokk suñ borom dina la may ndam nga dem fa te ku ci bëgg aw tur ba tax nga nekk ci presse bi naan diw mooy daan diw mooy daan nga teg ko ci ngir bëgg koo wute xaalis mm-hmm. doo jóg ci gàcce mm-hmm. am na ñu nit ñoo nga xam ne fii ay nit yu doy dinañ mm-hmm. heure buñ xëyee bu guddi jotee ñu dem ësël dellusiwaat fii te boo leen gisee yéen leen ab sarax. Mm-hmm. moo tax foofu dinaa wax doomu aadama yi buñ gisee nit ñi nga xamante ni dañoo dañoo jàpp ni ay nit yu doyoo la ñu xeebalan nan leen jox seen cër ndax alxuraan xajul fenn fudul ci bopp doomu aadama buñ jëleen li fi nekk fer ak béton lépp jaxase ko ci àdduna buñ fa wàcce woon benn bisimilahi rahmaani rahim mu tasaatoo ci bopp doomu aadama lu ko suñ boroom wàcce kon na leen fonk doomu aadama yàlla moo ni wala xadd karam naa bani aadama yàlla lu bind doomu aadama la ci gën a fonk ak jinne kon bu ñu gisee nit nañ ko jox cër te bañ koo xeeb am na ñoo nga xam ni fii bu ñu ñaanee yàlla yàlla amul lu muy xaar seen bisimilah rek la suñu borom di xaar waaw te am na ñoo nga xam ni kenn du leen merloo parce que euh, ba du jéggale nit ki mën naa jéggale ci jëmmam mais ba du jéggale. jékk actuellement ni ñoom ñaari mbëri hmm, ci sa gis-gis kan moo ci gën a jekk. xam nga loolu doo ko sañ a wax. Hmm. ndax ci jekk. waaw loolu xam nga boo ko xoolee yàlla mën na lu ko woon mën ngaa bañ a def dara nga tëdd guddi rek nelaw diir bu gàtt yàlla won la nga xamante ni da nga koy gis ci nit dara du ci teppeeku même bu dul làmb da ngay tëdd guddi yàlla won la loo nga xamante ni ci nit amul dara loo nga xamante ni lu koy dindi la làmb ci gën a tuuti waaw yow nit ñuy waxtaanee ak yow nii rek man na maa dem tëdd rek tëdd laa la wax de gént yàlla won ma ci yow loo nga xamante ni mën naa ñoo dund ay at ca kanam yàlla won ma ni lii laa géntan Mm-hmm. noonu rek la demee. ah. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy dañ dëpp gi. ndax fi mu toll ni actuellement euh, ku ci mel ni Modou Lo ak Ama Balde. sëñ Fallou Luc Nicolaï nee na dafa fas yéene jàpp le 3 juillet incha allah rabbi signature contrat bi fële stade bu Bakaaw bu Gàmbi. mel ni signature contrat bi jéem nañ ko def fii ba sonn. antuwut am na ci sëriñ soo xamante ni ma comme combat boobu boo xefee stade lu fay tuuru ci deret dina bari. nga ma wax ci. yàlla yàlla fel seen gémmiñ te loolu yàlla bu ko yàlla def Ama Balde Dakar la dëkk Modou Lo Ndakaaru la dëkk. yooyu ñuy wax di ko wute ay prétexte nañ ko bàyyi. Modou su fayee ay million ci ay poosam la koy def ànd kook ay mbokkam Ama Balde su fay koo ay million mook ay mbokkam ñoo koy. féetewoo sëriñ bi jóg ngir bëgg ca promotion nan cay waxee ndànk ñaari xale yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te mbër yi boo déggee seen communication léegi xam ni yeewu nañ bawum xaalis nag xel moo cay dem waaye xol du ca dem mm. parce que am na soo ko ëndee wala nga bëggoo wax rek dangay loru yeneen yi lu loo nga xamante ni date bi des na ay weeri weeri weeri weeri weer lu ci nit di wax rek tam leer na yow mi ko wax xamu ba xam di nga ko fekke wala doo ko fekkee soo cay wax rek waxa ca loo nga xamante ni euh, loo xam la soo bañee jum parce que loo fi wax rek dinañ la ko indilaat ni yaa waxoon lii yàlla nañ ci yàlla musal. Mm-hmm. waaw lan ngay wax ñaari mbër yi kon ci ci wàllu boobu surtout ci mystique bi parce que ñëpp nee na ñaari mbër yooyu dañoo mystique. ci wàllu mystique lan nga leen mën a wax. waaw comme foofu liñ ciy man di wax xam nga comme la ma la waxan rek loolu mënuñu cee sori. xam nga li tax mënuñu cee sori ku ci nekk am nga ay mbokk am nga ñooy àndal te ñëwagul. te jubloogun ci yàlla xam na ni gisaguma ci dara xoolaguma ci dara defuma ci dara maa ngi toog di ñaan yàlla promoteur bi ko tëgg maa ngi ñaanaat yàlla suñ borom mm-hmm. yàlla suturaal ko ba mu am ci jàmm ak salaam ndax amaa famille la yor war leen a dundal mutloo famille la yor te ñi ko yaakaar dañoo bari te mut loo ñiy dund ci aw ñaqam dafa bari kon dañ leen di ñaanal rek ñu yegg ci jàmm ak salaam ku ci nekk la nga war a def rek nga dem defi ko ku ci nekk am nga ay mbokk am nga ñoo yaakaar ñu dem def ko ci jàmm ak salaam mais yenn yi ci sëriñ si def nañu ko bàyyi amul rendement ama ak mudu buñ bëree ba noppi ay doomu ndey lañuy ñuy di nekk nañ bàyyi euh, tension yi ciy indi wala yeneen affaire yi nga xamante ni dañ ci dañ ko ci indi te bokku ci benn tàkkusaan la benn heure la benn waxtu la mu dem jeex kon laneen amu fi ku ci nekk ëllëg da ngay daje ak sa morom wala ngeen di tuddante ay doom nañ nañ wax wax ju rafet ci presse nan ci defin jëfin wu rafet ñu ci bañ wax loo nga xamante ni dañuy ci xeeb. Hmm. loolu jékkul daal rafetul daal. kon da ngaa bëgg boobu bu ci daay ji lakkee Serigne Seko lakk. waaw parce li liñ ci commencé di ci wax nii ña tour tuur ay deret ay doomi jàmbur ñoom sëriñ si ko wax kenn génnu ci dem estaat ñu ngi toog seen biir kër mhm. nañ ma yàlla jéggal sax parce que ñi koy wax duñ ay sëriñ mhm. nañ bàyyi loolu sëriñ dafa am na muy comporté woo ku jóg dugg ci affaire sëriñ ba nga ci wax loo nga xamante ni lu ju nekkul la da am yoo nga xamante ni sax dafa dafa wallaahi am man am na ñoo xam bu ma boo déggee sax ñu naan sëriñ li wallaahi man dama ci am naqaru xol ndax daal dañu am loo nga xamante ni yow bu dara fanaanee ci sa bopp am na yoo nga xamante ni waroo sax génn di ko wax yàlla seede na ak yonent bi mm-hmm. waaw. ñu ñëw ci sëriñ si nga xamante ne actuellement gis nañ leen li ñuy génn ci réseaux sociaux yi bari na trop di faj ay malaat di wane seen bopp Massi la toll na foofu wala tolloogoo foofu. de wax dëgg yàlla duma ko def sax. dama ko dul parce que xam nga dama ko dul def mm-hmm. man maa ngi alxuraan. yàlla teral ma ci macha allah ma dund ba toll nii ma toll ak li ma yor ci ay at di dugg ci loo nga xamante ni damay làmbar wala may def ay taf yëngal lu ma koy def man ab kaw kaw laa benn numéro laa yor lu ma xam laay wax lu ma xamul duma ko wax tey amul benn doomu aadama bu may dee toog di la xaar naa la sama diggante yow règlement de compte bii lañ war a régler ndax man bon exemple laa wala wala parce faarifoo xabla in ta'budoo wa in lam yaxrifoo kayfa ta'budooni yàlla nee na ngeen xam ma door maa jaamu lu jiitu ngeen may xam na ngeen ma dem na ngeen dem jàngi man mën na ma jàng xam yàlla war a nekk nit kuy digle di am yow nga xamante ni dama ciy dugg duma ko def du ma ko ngir koomum àdduna lu ma ko jaral ci àdduna boo àndeek alxuraan doo xeewi doo tardé alxuraan moo lay teral ba kër ngay dugg ci biir bàmmeel dara du ko dindi. am na solo waaw si la ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax te xam naa ne li ñu bëggoon tënk yëpp waxtu bi duñu ko mayaat waaye saa su ne rek mooy bëgg di toog ak yow ñuy gën di waxtaan ndax xam naa ne njariñ la ci ñëpp ñoo xamante ne ñun ñuy seetaan rawatina ñi nekk bitim réew di yónnee seen xaalis te duñ mën a jot ñi ngi koy yónnee ma lay jaajëfal bu baax a baax. wax nga dëgg loolu moom moo gën a nekk li nga xamante ni yow bu ñu ko waxee rek ci nekk doomi jàmbur joo nga xam ni ba mu koy def sax ay waa waajuram mën nañ koo bañ a yëg ngir yaakaar bu mu am ci doomu aadama bi léegi yow jox la xaalisam booba la la noppee dégg mais yow nga ne am ñaankat nga yor nga juróom-benni numéro wala nga yor nga ñeenti numéro ñi lay woo nañ prêter attention ci ñooñu. am na loo nga xamante ni du ay jaaxaan baatin dañ koy jàng deesul toog di ko wax ak damay def lii dama gis lii damaa gis lële loolu du baatin de te képp koo arnaak pour lekk xaalisam da ko goqi ñoo ngi ñaanal nag àdduna li xew ci réew yi jullit yi gis nañ ko waaye yàlla moom dara jafewul ci moom ñun jullit yi nañu fas yéene nekk benn te ñun jullit yi nañu bàyyi di xas gor parce que bari nañu am ci àdduna bi xas gor moo koy waral parce que gor boo ko xasee dañ laa war a dóor téeméeri yar ndax kon nekk na loo nga xamante ni am na loo xam ne ku ko def rek yaa ngi déclaré suñu borom guerre kon yàlla na yàlla suturaal ci lu mel noonu ba yàlla bu nu yàlla boole ci lu mel noonu yàlla bu tax ñu lu tax ñu yëg suñ bopp yàlla bu ñuy def lu tax ñuy jàpp ni ñoo gën doomu aadama yi yàlla bu ñu yàlla defal loolu yàlla bu ñu yàlla defal bew yàlla na yàlla muccal yàlla na yàlla def ci réewi jullit yépp jàmm yàlla na yàlla tàppe xol yi yàlla na yàlla jéggal suñuy rëcc rëcc yàlla defal nu tawféex di baloo àq ñépp ci korite gi ñu jóge wax jii nag bu nekkee dafa wax dañ ca wax loo nga xam ne dañ ku ci jàpp ni dañ laa wax lu la laal duñ la jéggulu dañuy wax nga jéem a orienté wu ji. ku ci wax ku buñ ci waxee loo nga xamante ni dafa dënk. am na ñoo nga xamante ni ñoo ngi leen koy jégglu mais ci bu ma ci waxee loo nga xamante ni dafa laal am sëriñ suma laal. nan jéem a orienté wu ñi ci jàngul dem jàngi. te bàyyi naxaate yi buñ leen di woo. nan jël seen numéro yi. te sëriñ bi dafa fatoog day nelawaak ba ki a taxaw ci bunt bi yooyu ay prétexte la. nit ki mënoo am ci moom soxla. mu lay jafe te nga jël sa tuut jox ko wala nga ne envoyé nga ko sa cinquante mille seet nag xam na cinquante mille moom bu la ko ñu defalee xanaa wax dëgg yàlla la gisee nga ko jox un million kon na yàlla musal ci yenn ñaawteef yi laa ko mën a tuddee yàlla nañ ci yàlla musal ndax yooyu damaa jàpp ni ñàq day génn ci diggante yóoru ak deret bu ko nit joxee a ah, war ngaa jàpp yow bi mu la ko joxee balaa jant so mën ngaa faatu waa boo faatu yu bàyyi loolu foo kon ñoo ngi jaajëfal waa bitim réew. di am nag ay nit yu ma ci sant yoo nga xamante ni ku ci mel nu xaadim. di sama xarit di sama doomu ndey. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal waa bitim réew. li ñuy sàkku. yal na leen ko saa borom yàlla jox bañ dellusiwaat. fii ci Sénégal. di la sant. di la ziar. di la balu àq. di ziar euh, suñu caméra bi. di siyaar euh, Père Birahim di ko ñaanal jàmm ndax ku ñu sopp la ndaxte ku dëggu la boo dëggoo doo neex deret ndax ñun duñ ñi kenn yàlla nuyu na la te gisuñu ko yàlla seede na ni am nañ tawféex biñ ko fekkee fii yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yal na yàlla teg njaboot gim gim fi nekkal mm-hmm. yal na yàlla yàggal taxawaayam ci kaw suuf di ñaan seen kër gi mm-hmm. yal na fi yàlla def lu kawe njort ci darajay njool màkka di wax àdduna asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëgeen jëf mbokk yi xool sedd na trop masil la ci ñaan gi nga xamante ne ñaanal nañu ko yàlla na ko suñu borom nangu defal ko jàmm defal ko mboole mu jullit képp ku dem ci moom ngir mu lay ñaanal yàlla na suñ borom duppale seen wërsëg ba lépp lu mu la ñaanal nga gis ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah beneen xew-xew jërë ngeen jëf